Baba Kermeng di maire bu Hann Bel-Air daal ko tab maire bu gën a ràññeeku ci meeru Sénégal yépp lu nu mel nak ma nga don amé fële ci musée des civilisations noires ñëlu ci édition prix ragné sentiment bima jëk am moy d'abord sante yalla sante yalla bu baax baax mais di remercier en tout cas Hann bel yépp parce que je pense que li amul lu ko gëna reuy distinction bi nu mu munti mën a rek moy amna djégo yu ñu dox ndaxte bo len xolone film bi nga xam mom lañu préparer dañuy woné ay réalisation réalisation yoo amna ne mais amul ci yeneen commune mën nañ ci lim yu bare mais li nga xam mom lañu bëggone wax surtout en tout cas man mom la bëggone wax ci touru conseil municipal bi nga xam ne jité ci touru bureau municipal moy sante Hann yépp buma sante ba nak warnama na parce que liguey bi tay bu fekkee ne amna, niveau bu mo egg ci walu partage ci walu compréhension ci nga xamné ci walu mun service rendu ñu gis impacté direct c'est parce que ñi ngi déglu askan wi té nak suñu mission aussi moy ñu tok di déglu parce que ku déglu di nga jang ku bëggoon xam di nga xam donc yalla def véritablement suñu borom tek ci loxom et muyu gis un résultat donc muy lo xamante tay an ci bopam nañu honorer donc li ma bëggone moy remercier bu ma remercier association yépp yéen ñi aussi mun naa ne da ngeen ci bi parce que ay partenaire ngeen je pense que communiquer baax mais nga communiquer la nga xam ne réalité xam ngeen tey bu que ne jël ngeen seen plan dem di wane la xew ci Baie L'olu Hann ngi def de la sensibilisation et l'olu c'est extrêmement important moo souvent dama de faire am travail de communication boo xamante ne bukk de ci di xeeb dafay liggéey boo xamante ne lu am solo la en tout cas daal dañuy sant di gërëm il n'y a pas de secret un problème bu fekkee ne bëgg nga ko saafara il faut comprendre le problème vous savez man damay koo xamante demain damay déglu lu bare parce que dama jàpp ci li may déglu dama ciy jàng nit ñi léeg-léeg dañuy toog di exprimer li nga xam problème la mais nañ koy exprimer da ngay comprendre que n'importe lay poser problème sax ñoom maîtriser wuñ la a wax parce que tey bu fekkee ne prix ràññee la mairie damay jàpp ne mairie de commune les lu mu war def mairie de Hann def nañ ko waxuma nag ñu ne problème assainissement la ñu bëgg ko imputer Hann Bel-Air muy problème mu yeneen secteur yoo xamante ne doxul ñu bëgg a imputer Hann Bel-Air donc loolu dafay loo xamante ne baax nañu leeral ko parce que bu fekkee ne nit dëkk na tey Hann Bel-Air di fa yeewoo bu fekkee ne évaluer na muy tudd rek te yàlla tax dana xam ne que Hann Bel-Air mi ngi changé te mairie bi am na loo xamante ne defuñu lépp nag mais ñi ngi def liggéey boo xamante ne je pense que ku xam mairie bi di nga xam ne que am na jéego yu ñu ciy dox. li ñuy faral di wax ñun ñëpp Mbacké c'est le champion de la B. Mbacké ba mu ciy def sensibilisation yagna. na tey bu fekkee ne ràññee nañ ko ci wàllu sensibilisation mooy li nga xam ne def ci ak ci la rek donc dafay loo xamante ne man dama féliciter d'abord par rapport à son prix mais di rafetlu taxawaayam ci baie te li may faral di wax moom sax dafa wét tey am cadre boo xamante ne mettre nañ en place muy CRAB mooy cadre bi nga xam association yi nekk foofu yëpp ñoom ci biir di yëngu ci biir bi plus de 80 associations donc ñoom aussi ñi ngi def le même travail te il faut que ñeneen ñëw jàpp ci liggéey pour mu gën a woyof donc Mbacké mënuñu lu dul encourager ko c'est un élu comme man ñoo bokk conseil municipal fii bokk conseil municipal Dakar muy loo xamante encore une fois dafa am yenn distinction yoo xamante ne dafa ñuy dépasser ñun donc dafay delluwaat rek biir Hann Bel-Air population de Hann donc euh, prix pour yéen la dañ leen di féliciter di leen encourager

Nous avons presque trois mois ñu livrer nous sommes la seule commune qui a mis en en tout cas gazon synthétique def ko Sénégal a plus de 550 collectivités territoriales donc dañ leen di décerner prix bi di leen ko féliciter di encourager